Nay Mariam Jai.

daal di nañuy ñëwaat ci liggéey yi na mu tëddee ba sax daal di nañuy xamle ne lépp loo xam ne nag dañ koy def jëmale ko ci wàllu dialogue politique bi de ñoom dañ ciy waxtaan boo juboo si maanaam daal daal di am consensus ngir war a mën a nag wéyal seen i liggéey seen rapport boobu nag ci alxames bi nga xam ne nag moom ko daal di ñu wax nag ci doxum ñaxtu bu mag bi nga xam ne nag ñu bokk ci biir société civile dañ koo fas yéene amal ci ajjuma bi nga xam ne nag moom la ñu dëgmal wante tribune la mu ñuy wax daal moom mooy ne ñooñu de dañoo am njàqare nag ne sénégalais yi ñoom duñu ñëw ñëw wuy si leen ndaxte saa su fekkente ne nag dañuy amal ay doxam ñaxto ngir kaas li xam ne nag moom moo jublu ci soxla askanu réewum Sénégal duñ leen di faral di gis loolu sax moom moo tax ba Omar Faye mi jiite mouvement leeral askan wi di daal di woon ak Sénégalais yëpp ñu ñëw wuy si leen nag ci àjjuma gi ñu dëgmal moom sax nee na nag li mu bëgg moom mooy mu am benn million ci ay nit yoo xam ne daal ñëw nañu nag ngir ñaxtu courant gu seer gi nga xam ne nag moom moo am fii ci mim réew li ni mel nag moom la Guy Marius Sagna ak ñooñam doom ñaxtu ba nag caabi mu jëleen féetee gannaaw ñoom nag du li woon di xiifal seen bopp réew mi quotidien moo ñu yëgal tey ji nag ñu mujjee nañu bàyyi seen xiifal googu loolu moom ginnaaw ba ñu déggee nag seen avocat bi di maître Moussa Sarr ñu jukki nag ci mbirum juróomi milliards yi nga xam ne nag gouvernement bu réewum Sénégal daf ko daal di décaissé nag jébal ko benn haut fonctionnaire autolikaay bi di critique ñu ngi ñuy fàttali ne Birahim Seck moom moo fësaloon mel ñu daal di indi ay leeral ko nag ci kàddu yooyu nga xam ne moom la Birahim Seck daal di fësaloon ndax ci yëglekaay bii di 24 heures ñu ngi ñuy xamal ne kii di Boubacar Ba ak i ñoñam ñoom nee nañu nag ci ni mu gën a gaawee nañ ñu wax nag lan moo waral juróomi milliards yooyu ñu daal di koy fësal jox ko nag ab au fonctionnaire Boubacar Ba daal di gis nag ne su fekkente ne daal li ni mel moom amul ñoom sax pare nañu nag ngir yóbbu ko ci kanamu yoon ci wàllu koppar la ñuy des ndaxte yëglekaay bii di Le Soleil mi ngi ñuy xamal ne bu ñu xaymaa ci atum 2018 koppar gi nga xam ne nag moom la ñu jëlee ci wàllu industrie extractive mi ngi toll euh, ci euh, téeméeri milliards yu tegal nag ñaar fukk ak ñaar julikaay bi di di ñu xamal ne dem nak lañ doon fësal ab rapport jëmale ko nag ci wàll gi ni mel au conseil des collectivités territoriales dem nak lañ doon amal seen session bu njëkk ginnaaw nag génnub àddina fa nekkon jita di Ousmane Tanor Dieng julikaay bi di wa grand place di ñu xamal ne dem nak ba ñuy nak nag ndaje bobu ki di maître Ousmane sey mom mo dal di fësal ay kàddu yoo xam ne day delo njukkal ki nga xamne ne de moom mooy Ousmane Tanor dia mbirum Seydina Fall bu gazeli lañ ci jukki tay ji ak julikaay bi di

nag di ñëwaat ci ab gëstu gu yaatu goo xam ne nag daf ko jëmale ci ñii di ay réfugié mauritanien ñoom de ba ñu leen dàqee fa li nga xam ne nag moom mooy ca Mauritanie ñu dawee nag ñëw fii ci biir réew mi ay jafe-jafe yu tardé lañ ci jànkonteel uculikaay bii di laas tey ji nag di ci ñëwaat ci nu mu gën a yaatoo jeexalee ko ak wàllu lamb ak uculikaay bii di suñu lamb tey ji nag seq na waxtaan ak Khadim Gadiaga moom nag combat bi ñuy xaar ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo moom tey ji sax la gën a xamle ne bëgg nañu nag combat boobu daal di taxaw ndaxte nee na nag kii di Modou Lo ma ngay waajal boppam koom ci wàllu combat gogo té nak amna yakar né ci année bi mom du ci def euh, saison blanche té it euh, amna ben promoteur bo xamné nak mi ngi def kémti lay nan nak euh, ngir combat bobu wara mëna taxaw li mo lii moo nekkoon bor di lukat yi di gën a fës ci biir julikaay yi ñu leen di ñaan naan njaxtulu ba sëg jawam CSIP ñepp rañé ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux